et eh, dañ fay ñëw wuy woté président de la République son excellence Macky Sall bi xam le école yi war nañ ko ubbi yi nga xam ne mooy le 2 ñu ànd sax suñu partenaire ak son représentant muy le sous-préfet de Ngeko monsieur Ibrahima Ndiaye ak le représentant du ministère de l'éducation nationale IA de Thiès ak aussi chef de Mbour le collègue de Ngeko ak suñu partenaire Abdallah Sat loolu woné né alors région de Thiès répondre nous, répondre nous massivement à l'appel du président de la République, son Excellence Macky Sall. Service d'hygiène, le matin, nous sommes avec le capitaine Diao, qui désinfecte toutes les écoles, toutes les classes. l'on c'est à saluer. même les privés, ça, veut dire alors le président Manuel Lep, en tant commune nous guerre Covid 19.

service d'hygiène participé na kon alhamdulilah rabil alamin école yi dans le département de Mbour surtout commune de Ngexo ñun pare nañu ndax bu fekkente ne désinfecté nañu école yi ñu indi ay masque élève bu ne war na mën am ñetti masque te président euh, li mu joxe exeegul te fu mu nekk nii presque codec baa ngi nii taxaw muy le monsieur Sané te classe yëpp danañ ko bale kon pare nañu pour ubbi

de la commune de Nguékhokh l'honorable député Pape Songo Diouf il faut me remercier parce que comprendre na li ñu xaar ci maire ba paré dégg na aussi woté bi nga xamné mom moom la njiitu réew mi woote njiitu réew mi dafa wo ñepp la wo ñepp ñu japp ci xex parce que liñ ko tuddee ci effort de guerre la ku nekk da ngay indi sa contribution donc mom comprendre na lolu ñu xaar ci mom peut-être tay cérémonie bu ñu def réception la mais avant tay amna action yu bari yo xam ne déroulé na ko j'en suis témoin déroulé na ko mais boobu gisee ñu dajale li c'est parce que amna ben événement bo xam bi mi ngi suñu kanam di waxu moy xalé yi dañoo war a delluwaat yi nga xam dañu nekk classe d'examen muy sem 2 di BFM di bac ak ñi nga xam ñi ngi jang jang mo xam ñu ko tuddee enseignement professionnel CAP BTS ak leneen ak leneen vraiment lolu mu nekk lo xam li dañ né pour ñu mëna amalan jang njàng moomu delluwaat école bobu il faut mu am ay matuwaay yoo xam ne jël nañ ko ci matuwaay yooyu nag waa kër docteur ñoo ko édicté moom looloo tax nag matuwaay yooyu fi mu toll nii le maire de la commune da ngay xoox comprendre lu ñëw fekk si loolu donte ne sax jëlul yemul sax ci li nga xam ne mooy am amu commune Ngexoox mais dafa dem uti ay partenaires partenaires ne yi ci gën a ràññee mooy Abdallah Sad bi nga xam ne mooy directeur général PAPEX ak Assane Farez ñu ñëw taxaw la nga xam ne soxla nañ ko pour reprise am ñu indi ko. muy les produits d'entretien et les kits de lavage des mains ak les masques là. donc damay wax rek né li lañu xaar ci yeen xaaruñ leneen ci yeen voilà encore une fois mën naa wax sax que li amna na leneen lu ci yok lo xamné peut-être gisu leen ko déggu leen ko moy amna virement de crédit bo xamné bi def nañ ko pour japp encore ci xeex bi